maa ngi euh, nuyu mbokku senegal yëpp di nuyu jullitu senegal ak jullitu àdduna bi yëpp di am benn euh, mbégte di ñëw fii dëkk bu sell bi muy Touba bi ñu fi ñëwee yàlla def na ñu gisanteeg le xalif général des mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké euh, gis nañ ko mu ñaanal ñu ñu yéene ko mu yàlla defal ko bu mu am gudd fan ak wér yàlla bàyyi ko fii lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ba yéene bi mu am si yoonu murit yéene bu mu am si Sénégal yàlla mottil ko te mu fekkee ko ak njaboot gi yëpp di xamal ni nag ren màggal gi day dajel mooy bis sëñ Touba génnee àdduna ba léegi muy am cent te loolu nag dafa doon événement bu am solo si taarixu senegal ndax képp ku xam sëñ Touba dafa doon euh, yàlla dafa doon muy liggéeykatu yanante bi sallallahu alayhi nga xam ni yéenam yëpp mooy jullit yi euh, dund seen diine l'islam mais dund si diine l'islam ba xam ne day day day day tegu si dignité ak liggéey loolu nag message boobu ku ko am mu nekk message universel du Sénégal rek du jullit yi rek sëñ Touba message am concerné wul sax julli di rek àdduna bi yëpp la ko la concerné parce que moom dafa koy wax su dee ñaanal ñaanal ñaanam yamul rek si julli di ñaanam dafa jéggi sax julli di def ñi xam ne sax gëmuñu euh, dini l'islam donc ku am message boobu mu nekk message universel kooku bésam su wax dëgg yàlla jar na état bi taxaw ci taalibe yi taxaw si julli di taxaw même ñu dul julli sax ñëpp taxaw si ndir bis bi am réussite totale alhamdulilah état wu Sénégal Euh, nga xam ni son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo ko jiitee lépp lu mu waroon def si ay moyens pour réussite màggal gi état bi mi ngi koy def te incha allah état bi du si yem dina continuer di accompagner Touba si assainissement ak si lépp ngir Touba nga xam ne ñëpp xam nañu jamono yi Touba bokk na si dëkk yu gën a mag si Sénégal su dul ñaareelu dëkk bu gën a mag si donc dëkk boobu ay millions wu nit di fi dund ak di fi ñëw ngir màggal. donc dëkk boobu laaj na effectivement état attention bi mu si def te incha allah état du yem si loolu dina gën a continuer di dugal loxam si Touba di accompagner le xalif général ak képp kilifa diine bu fi nekk. nga recouvrement yi loolu mooy suñu liggéey waaye nag day reconnaitre effectivement dëgg la société bi si jamono yu ñu nekk nii nekk na ci ay jafejafe comme Sénégal nu mu bindoo rek te loolu lu ko waral daaw dañu nekk si année électorale. wala pré électoral bu métti ak ren sax ñu nekk seen nekkoon si année électorale bu xaw met te loolu dafa am jeexital si économie Sénégal te économie Sénégal su su su amee euh, jafe-jafe rek day feeñ si recouvrement bi ñi nga ñi nga xam ne dañuy yoreel euh, état bi xaalis wala yoreel bànqaas état bi xaalis ñoom dañuy am jafe-jafe fay loolu moo tax ren recouvrement yi xaw a tàgga tàgga témbe mais yaakaar nañu incha allah avec la reprise de l' économie avec l' accession du président de la République, son Excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir avec la recrute de notre économie incha allah am nañu yaakaar recouvrement yi aussi dina dina amaat beneen taxawaay bu ñu ci taxaw recouvrement yi dina gën a dina gën a ñëw ndax recouvrement yi dañ ko def juste pour dimbale état bi parce que dëkk secteur bancaire dafa nekk lu am solo te créance yi suñu bëree rek loolu mën na am jeexital si wàllu économie te pour éviter conséquences négatives yooyu ya nga xam ne day mën na sooxe économie bi SNR dafa am rôle bu mag bu ñu ciy joué moom mooy dimbale état bi mu mën a recouvrer ces créances là pour mën a soutenir l' du Sénégal. le recouvrement yi effectivement ñoo ngi siy réfléchir ñoo ngi koy doxal d'ailleurs am na ñoo xam ne sax d'ailleurs ñoo te dafa laaj ay jumtukaay yu bëre dafa laaj organisation dafa laaj ay stratégie te strat organisation bi ñoo ngi si di ko améliorer tous les jours stratégie bi aussi ñoo ngi si taxaw te am nañu yaakaar ici fii ak ay fan ay semaine wala ay weer wala ay at incha allah recouvrement ba nga xam ne SNR daawoon na ko am si joolu daañu ko reprendre et am na benn introduction te wax naa leen ko léegi mooy ana jafe-jafe yi ñu joto li Sénégal joto joto joto traversé mais alhamdulilah yaakaar nañu incha allah tey am nañ ci yaakaar bu baax sax stratégie yi ñu déployé euh, fii wak du yàggul dara incha allah dina porter ses fruits mooy daañu am des recrutements à un meilleur niveau.